bismillaahi rahmaani rahim mbokk jullit yi mbokk taalibe yi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay di jiital ci nuyu bi xalif général kullu murit sëñ Mountakha Bachir yàlla yàgg te ànd ak moom ak eh, ak lu mbàkke mbàkke bi yépp rawatina sëñ Abdou Khoudous Mbacke ibnu sëñ Murtala ibnu Xaadim Rasul moom ak ak lu Mbacke Mbacke bi nekk fii Suède ak i tamit ñi nekk ci Scandinavie bi yépp di nuyu jëwriñu jotaay bi jëwriñu daara ji sëñ Mamadou Sène Pape Kiyemou Cissé mi nga xam ne laa àndal ci liggéeyu kër sëñ Touba waaye tamit eh, sëñ Malick Socé ak sëñ Balla mi nga xam ne ñun soxna yi moo ñu yor di ñu tette ci yoon wi di nuyu yi tamit soxna yi nga xam ne lañu bokkal jotaay bi rawatina suñu yaay daara ajaratu soxna Fatou Mané ak ajaratu Buri Njaay ci boros ak Adja Guèye ajaratu Guèye Fatou Guèye di nuyu yi tamit képp koo xam ne mu ngi fii ci dëkk bi nekk jëwriñ rawatina jëwriñu Baye Faly ñu leen di sant di leen gërëm di wax ni projet bii nag dañ ko bokk ak suñu mbokku jullit yi di ci liggéey ñu amoon yéene présenté leen ka wante wala boobu damay jéggalu rek ci kàddu yi nga xam ne laa fi fas yéene yëkkati ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo fi nekk ci jëwriñu jotaay ji waaye tamit Euh, di ñaan ngeen comprendre ñu rek su di fekkante ne am na loo xam ne daf ci safaan tey ñaan yàlla rek nañu jàppale ba lépp mote incha allah waaw projet bi nag projet Kër Serigne Touba la nekk projet boo xamante ne dañ ci bëgg woo jullitu yàlla yi yëpp daayira yi yëpp ñëpp bokk ko liggéey ci mu nekk kër goo xam ne bëggoon nañu incha allahu yi bés bu ñu yàlla mayee ba mu taxaw incha allah suñuy doom di fa ñëw di jàng alquranul karim di ci jàngale sunnawu muhammad sallallahu alayhi wa sallam sang-sang yi di ci tamit jàngale euh, œuvre soufisme yi nga xam ne tarixa yëpp ñu ngi koy am rawatina nag muridiya waaw lii lenn la ci li ñu bëgg li ñu bëgg ci kër gi muy benn juma ci jumaa ji nag fas yéeneen ci euh, di fa julli julliw juma julli juróom yi waaye tamit julli juma ak it tamit bu ñu amee euh, lu mel ni iid korité ak tabaski ak lépp loo xam ne rek euh, incha allahu rabbi bu xew-xew yu mag yi amee mën fa daje julliti yàlla yëpp daje fa incha allah ñu julleendoo ñaan yàlla subhaanahu wa liñ fa ñaan yëpp yàlla nañ ko yàlla defal ci kër gi yi tamit bëggoon nañu am benn salle de conférence foo xamante ne incha allah bu ñuy am ay cérémonie yu mag foofu lañ koy defee di fa jàng xasaayid di fi jàng yi tamit alquranul karim euh, kii bi nag euh, euh, superficie bi dina war a nekk ci 92 virgule 82 mètre carré incha allah bëgg nañ fa nag jàngale ndax sax loolu moo gën a sabab mbir yi mooy di fa jàngale comme ni ma ko waxee sànq. di ci jàngale sunnaw muhammad sallallahu alayhi ak lépp loo xam ne loolu la yoonu jullit yoonu islaam santaane ñu di ko fa jàngale ak it tamit comme ni ma ko waxee sànq li nga xam ne mooy ci euh, jàngale boobu nag tamit ñun Touba Sweden dañu am benn benn école boo xam ne fa xale yi di jàngale jàngee alxuraan di euh, suñuy doom ñu fas yéene woon yi tamit bés bu yàlla defoon ñu am kër gi am ay euh, salle d'étude yi nag mu ngi toll ci ñetti salle salle yoo xam ne euh, jigéen ñi fa lañuy jàngee góor ñi jàngee ci beneen salle bi ñetteeli salle bi ñu di fa jàngale ñu fay jàngal mag yi tamit ndax ñëpp xam nañu ne jàng du wees te képp koo xam ne rek yàlla may na ko euh, xelu mu war a tënku xam diineem xam euh, euh, tarixaam yi tamit waaye surtout diineem dina dina baax mu ñëw incha allah moom it tamit ñu jàpp ci jàng ji incha allah. ci kër gi tamit ci gannaaw dañu fas yéene woon amal benn benn terrain lay nekk foo xam ne bu saison été jotee ñu mën di fa amal suñu programme yi incha allah. ci kër gi tamit ba tey dañ fa fas yéene amal benn bibliothèque bibliothèque bi nag euh, bind yi fa lay nekk euh, téere yi nekk fa incha allah bu ko defee képp ku bëgg rek ñëw gëstu ci soufisme mën a ñëw gëstu foofu ci soufisme rawatina nag suñu mbokk yi nga xam ne la ñu bokkal dëkk bi di ay euh, suédois ñoom it tamit bu ñu bëggee ñëw gëstu ci ah du Bamba ñu mën def ko incha allah wala itam bu ñu bëggee gëstu si soxna jaara ñu ñëw def ko ndax xam ngeen ni euh, amoon na fi benn at waa université yi nekk ñaar ci université yi nekk fii si Suède bëggoon nañu gëstu si soxna jaaratulla te defoon nañ ko itam ba kenn ci ñoom sax nag bindoon na ci téere donc bibliothèque bi tamit euh, ñu ngi ci woo képp koo xam ne rek incha allahu rabbi dina la jot bi dina la ko may tey tamit bëgg nga gëstu nga ñëw gëstu incha allah. ci kër gi ba tey ñu euh, di ci am euh, waañ foo xam ne foofu incha allah la ñuy euh, séddale yi waaw ci kër gi tamit ba tey dinañu am fu ñuy dem yeesaloo ndax mën a waajal def suñuy foo xam ne foofu la ñuy defee luñ tudd jàpp julli incha allahu rabbi mu am bu góor waaye tamit am yu soxna yi ndax bëgguñoo boole ñaar ñi incha allah. si kër gi tamit képp koo xam ne rek am nga conférence religieuse bëgg ko fa def itam mën nga ko fa ñëw def te fas yéene ne ñu ngi ñaan yàlla mën a am matériel boo xam ne tamit eh, saa yoo ñëwee war a taxaw pour def sa say présentation religieuse di nga fa mën a def incha allah. amit tamit euh, benn euh, euh, place boo xam ne incha allah foofu la lépp li ñuy denc fa lay nekk rawatina nag matériel yu précieux yi nga xam ne lañuy ñuy amee muy alquranul karim ak xasaayid yi ñu fay denc incha allah yi fay teg ak garage yi tamit loolu daal à peu moo nekk ci kër gi waaye li gën a nu am solo mooy dañuy ñaan soxna yi nga xam ne laa nekkal nii di soxna ummi ak soxna sooda ñuy ay xale yu jàmbaare ñoom it tamit ñu ngi ñaan kilifa yi nga xam ne ñu ñoo fi ñoo fi nekk ne ñu gëstu daara ji te xam ne xale yi mën nañu ñëw jàng si alxuraan dinañ leen jàngal c'est gratuit kenn feyut loolu yi tamit baaxoon na rek yenn waajur yi ngeen xam ka te xam ne xale yi ñooy ëllëgu mu ñëw suñu ëllëg te suñu ëllëgu suñu ëllëg ren léegi lañ ko war a defar balaa moo trop ñëpp xam nañu dëkk bi nu mu tëddee ne ñu gënaat góorgóorlu rek incha allahu rabi ci njaboot bi ah, xam naa ni daal kàddu yi foofu lañ koy tënkee di jéggaluwaat ci kàddu yi nga xam ne lañ fi yëkkati di nuyu waa fédération bi yëpp di leen gërëm di leen sant rawatina nag soxna yi nga xam ne ñoo jógee ci Norvège ak i tamit ci Danemark yaa Adja ba Fall ñu ngi lay nuyu yow itam di la ziyaar di jéggaluwaat ci kàddu yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu